nga jógee ci combat bu am solo yow Mbaye Diouf mais gars yi gars yi ne loolu du combat. waaw loolu du combat nañ ma jox combat. ah nee nañ da nga taamu fu nooy. wala boog adversaire nga manqué. waaw noonu la fa demee ndax man ba ma dalee bëre ba tey mosuma bëre paa mosuma bëre mag mais am na samay morom yoo xam ne bëri nañ fee mag mais man ma bëre fee benn yoon mag rek àdduna di wax te làmb la. parce ne du combat quoi. sa mbaab ba mu si toll dafa may sens keneen ak keneen noonu yaa ngi dégg làmb. Bombardier bu ko neexoon du bëri ñoom Balla Gaye xam nga mais làmb moo demee noonu ñun tey jii dinañ toll boo xam ne dañuy dem benn instant booy dañuy bëgg bëri ñun xam nga te noonu la fay demee. mais ñan ñooy adversaire. adversaire bari na du jeex si làmb. man de dama bëgg nga tudd ñaar. non yow man du ma tudd moom. ndax tudd naa Mourou Anta. Mourou Anta bu kees maa ngi koy tudd ba ba tey maa ngi laaj. sama grand sama lépp la làmb la rek. bëgg a bëre moom. kon kees la nekk rek lolu booy bu ñëw da lay defal bagage. waaw moo doon bëgg a bëre moom ndax moom grand frère la dama bëgg a moom rek. du kan Mor Anta Zarko. am laa la bëggoon jël la may la chance. jël. Zarko temps dafa tàng nag de. Zarko États-Unis la dem. fee France def fa cinq ans xaw ma ñun ñu toj làmb ji bu ñëwee war nañu mën a bëre ñun ñaari victoire dafa am. mais booy yi mënuñu ko de. ah na bëre booy nga xool. wax ma sax booy na jël na ma jël nga xool su ma jëlee ñu xam lépp dëgg la. boobu neex na la boobu moom dàqa sax. ñaar yooyu daal ñoo la gën a intéressé. ñoom gën neex. non day am.